journée bi nag ça a été initié par Malal Diallo wax dëgg yàlla waaw léegi comme que collectivité collectivité yëngu ci yu mel nii ah, mu ñëwoon gis ñu aussi ñu waxtaan muy daal ñu daal bu doon sagam suñu bu doon sagam mu porte ñu porte ñu collectif eh, journée bi Oh, loolu moy moy suñu war boo gisee nii sax avec les t-shirts là xalé yi sol ngeen gis ni loolu mo moo tax daal ñu ñëw japp ci et ça nous fait un grand plaisir parce que même bu du woon euh, loolu sax lépp defe naa ne lii buñ koy def ci ab dëkk c'est pas c'est pas c'est pas le fait ngay bokk ci ben entité wala ben structure mais war ngay ñëw mëna a bokk ci mbir parce que ça concerne tout le monde fi ku nekk am nga fi dara te ku fi amul dara tam di fi am dara ëllëg yal na yéex. waaw mais KVSP euh, moom moo nekk euh, euh, collectif de veille et de suivi du patrimoine de Djiddah Thiaroye Kaw lépp loo xam ne dafa laal Djiddah Thiaroye Kaw rek KVSP da ciy da ciy yëngu mooy li nga xam ne nii que ni war nañ ko war nañ ko état war na ko def. te peut-être gis nañ ne loxoom eggu fa ñun ñu eggu fa maire war na ko def te loxoom eggu fa ñun ñu eggu fa ñun loolu moom mooy suñuy liggéey lépp loo xam ne lënt na askan dañu bëgg rek mu leer ci ñu dox fa wax ci leeral ko askan wi loolu mooy euh, jóg-jógu KSP asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ka yàlla saña laa tudd waaw fi armeel bi ay jullit ñoo fi nekk moo tax ñun ñëpp ñu ko yëgee dimanche laa ñëw fii ajuma laa ñëw fii ajuma laa ñëw fii ajuma ma seet sama doomu as siyaare leen ñun ñëpp waa bi yëpp borom armeel bi ni ma armeel bi dimanche nañ koy nettoyé moo ta ma huit kenn jiitu ma ma ñëw waaw li ba lu baax la ku may dugub ñoo fi nekk fii bi dafa bëri ñax keroog ma ñëwee fii dama ko wax sax mu ne ma nañ koy nettoyé ma kontaan trop lii baax na ñu koy ñaan ci état bi yàlla ñu may sutura bu doy si bakk si naa Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu tërëb itam ñu ñaan yàlla na yàlla na xaajana si vaccine na Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam.